di sant jëwriñ jëm jëm ko fi nekkal muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla mu yàggal ko fi wéral ko ak njabootu sëriñ Touba gi nga xam ni mooy njabootu gi nga xam ni ñoo ne ci ginnaawam ak taalibeem yi ak ñi nga xam ni ñoo koy jàppale ci liggéeyam bi te war raw ci rakkam ji nga xam ni mooy imaamu Touba di Serigne Fallou Mbacké mi mu fi yebal di ko fi yebal at mu ne mu ñëw taxawu xew-xew bii te xew-xew bii day xew-xew boo xam ne bii ëpp na murit xew-xewoon lislaam la ndaxte lislaam kat ba ñu ko poñee Serigne Touba moo ko dindi lislaam ba nga xamee ni bi tay le nañu Serigne Touba mooy ki ko jot njot bi mu ko jot nag bokk na ci julli gi nga xam ne bii julli na ko ci biir géej gi ndaxte sëriñ bi julli la yàlla santaane cib jullit ñu bëgg ko ko xañ moo tax mu jël deram ba jël bakkanam sànni ko ci biir géej gi yàlla fekk ko fa mu julli ba pare dellu ci bato ba loolu nag mooy li nga xam ni moom la ñu fi teewe tey daan ko def lépp ñaar fukki at ak juróom nga xam ne dañ ko daan def mbooleem jullit mépp ànd ko ñun rawatina taalibe Serigne Touba yi waaye ren nii mu demee te umpul kenn muy li xew ci àddina bi te du loo xam ne lii yàlla dañu koo beral ñun senegale yi mais day lay xew ci àddina bi sëriñ bi nag joxe ci ay dikt ay tegtal ak i matuwaay yu mat sëkk bokk na ci nii ngeen ko gisee nga xam ni fii ba ba ngay sànni sa bët da daan fees dell ak nit waaye nag ñàkk a célébré julli gi munu la ñàkk moo tax mu ne woon nañ jël lim boo xam ne bu yem la lu demee ci téeméeri nit ku ci nekkit booy ñëw nga sol max raxas say loxo ñu distancé wu ku ci nekk ak sa moroom loolal la nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi ñu fekk ko ci def ko ci waaye ku ne xam na ni solo bi nga xam ne bii julli ci géej gi am na ko daanaka dépassé na sax ñi nga xam ni ñooy taalibe Serigne Touba ndax day acte de bravoure boo xam ni bii ak njàmbaar goo xam ni bii Serigne Touba def na ko te gis nga ni ko imaam waxee léegi ci waxtaanam neewul dootul am waaye moom yaakaarul ni dootul am ñu nit it yaakaar nañ ni dootul am ndax sëriñ Touba kat kenn la ci gaay yi yàlla yoo xam ni li ko yàlla beral nee na yàlla mosu koo beral kenn kon bon loolu moo ñu fi dajale. ñu ñu ñu ñu tënku nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ci li nga xam ni moo war suñu digganteeg ñi ñu seqal àddina moo taxoon ngeen gis ni julli gi demee ren nii mu demee. waaw nii ñu ko amalee ci Ndakaaru mel na ni kon misaal la yoon la wu ñu jëm ca màggal ga ne murid di xam nañ leen tier ak teggin ak dégg ndigal kon mel ni dem Touba di fa màggal tamit lu a mën a nekk la. waaw mais euh, euh, Touba daal màggal gi moom suñu suñu ndam la ndamu jullit yëpp la. rawatina taalibe murit yi ndam li nag mooy li sëriñ bi def ba am lu toll ni ak màggal ndax booy wër àddina bi manifestation bu mel ni màggal ñu ciy màggal nitu yàlla koo xam ni kii yàlla daf ko cee teral teraanga joo xam ni du dog ba yomal xiyaam loola kuy jullit ku ne walla nga nekk sax nit war ngaa ñëw bopp ci màggal googu màggal gi nag ki ko war a woote woote na ko muy ki fi nekkal sëriñ Touba nee na ñu ñëw màggal si ko lam ñu digle lam ñu digal tamit ci maanaam kuy ñëw di màggal si Touba ak ni nga xam ne lii moo dëppook jamono képp ku yaakaar Serigne Touba ku nekk di nga ko def mooy ñu jël li nga xam ne lii mooy bagage yi nga xam ne moom la jamono moom la jamono laaj ndax lii nga xam ne sa borom daf ñu ko def muy nattu ñu ànd moom te bu ñu demee ni ko sëriñ bi ak mi nga xam ne ñoom la seqal réew mi bëgg ñu aw ca yoon woowu ba yàlla dimbali ñu ba ña fa dem ñëpp kenn bañ am jàngoro kenn bañ ko faa yóbbu kenn bañ ko fa jële ñu màggal ci jàmm delloo si ci jàmm ñaan yàlla mi nga xam ne dara tawu ko ci màggug jaamu yàlla Serigne Touba gi mu jaamu yàlla màggal gi yóbbaale Covid 19 yóbbaale jàngoro yëpp mu génn réew mi ba ñu jubisee ak jàmm jërë ngeen jëf. muy tawfeex ju